yaa xayra day filada hilbiri wa madadi halan wa sahlan wa tarhiban télévision Mafatul Bichri TV ci fulku 2016 1437 hijri yu nekk fii ci kër Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké Eh, gis ngeen léegi bi nga xamante ni euh, fulku maçon bi jeex na ci euh, ñaari jataay yu am solo yooyu bu njëkk bi mooy euh, jotaay bi nga xamante ni mooy diwaanu salawaat sëriñ bi doon ko jàng muy ba waaye tamit bu ñaareel muy diwaanu quraan sëriñ Mouhamadou Mountakha doon ko jàng bi mu jeexee nag ñoo ngi fi taxaw ak sëriñ Mouhamadou Mahfouz Mbacké di kenn ci njabootu Serigne Darou Mouhty di euh, kenn ci euh, keppaaruk Serigne Makhtar Mbacké moom Serigne Modou Awa Balla moom ma maam Thierno Mbacké radiyallahu ta'ala anhu te xam ngeen ne maam Thierno moomu moom la Serigne Touba dénkoon li mu ko dénk bi mu dikkee la fekkoon dara méjjo dara yàqu ca kenn ci ak njaboot na mu yor Serigne Mahmoud Mahfouz Mbacké moom lañ taxawal nii ci seen télévision Mafatul Bichri TV euh, Serigne Mahmoud Mahfouz ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la ñaanal fanu gudd ànd wér-gu-yaram ci activité bi ak jataay yi ni gis di ko ànd ak yow te lépp muy liggéeyal borom Touba Xaadimu Rasuul waaye jaas tànki maam ji tedd jë maam Cerno Ibrahima Daam Daari Mooti ñu taxaw fi tey ci Touba Kër Cheikh Mamadou Bachir Mbacke radiyallahu taala anhu euh, jeexal léegi fulk bi ci kanam Serigne Mamadou Bachir Mbacke nga teewoon fi daaw teew fi at yu bari ñi nga teew fi bi nga ñëw tey jii fulk 2016 nga yëg Serigne Mamadou Mahfouz ginnaaw boo nuyu bokki téléspectateurs yi ba ah, bismillahi rahmaani rahim yeesal sunu njëbbal ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ko feddalee ci borom Daarul Muxti mii sunu bunt ci moom di sant yàlla bu baax moom mi nu mayaat ñu fekkee ko ren te fekke woon ko at yu bari di ko ñaan mu mayete ni nu fekkee ko ay yeneen at ci kanam mbooleek mbooleem ñu nag mboolem ñu fi teew di leen sant di leen gërëm yéen waa Bichri TV ma faatewul Bichri ci seen teewaay ak seen taxawaay ci liggéey bi ñëpp rafetlu ko wax dëgg yàlla Euh, yëg-yëg bi nga xamante ne am nañ ko nag mooy banu daa am rek ndax bokk na ci li nu indi ku ne xam na diggante Serigne Touba ak borom Darou Mokhti waaye ku ne xamoon na diggante sëñ Cheikh Obal ak Cheikh Mouhamadul Bachir man mii ki nga xamante ne moo meññ di sama waajur di sama bunt Serigne Touba Serigne Mouhamadul Mokhtar Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko yar fii ci njaaram ànd na ak moom fu bari ba poroxaan la ko yeewee fii la ko jàngalee xam-xam moo ko jox sëñ ma dem mu jàngal ko risaala moo ko jox sëñ moor mbay Cissé mu jàngal ko mu xaddimatul isiya moo ko jox sëñ Mor Lamine Diop Dagana mu jàngal ko mu aybul xudus bokkut ak lam ko jàngalal boppam ak yeneen ak yeneen yes mënta wax kon bu dul woon fulkul mashhun bi ñu xam li ci ku tedd ki wax ak la ca nekk lépp ci njariñ lu sëriñ Basiru woote rek ak njabootam woote ko ñu nekk fii njariñ war nañ koo wuy si waxantuma laag mu doon leneen loo xamante ne nii mboolem kuy murit ci nga bokk mboolem kuy jullit war nga cee jariñ mu nekk euh, jotaay boo xamante ne Serigne Mahmoud Mawz tudd nga léegi muy jotaayu xam-xam euh, ni nga waxee léegi euh, kilifa gu tedd ko fi mu jaar ci xam-xam mu mel ne kii ay kaddu yoo xamante ni danañ ko bëgg mu bàyyi ko ci mel ni yéen ndax yëg nañ ne yéen a ngi doxal Serigne Touba mission di ko mottali ci ndaw ñi ndax adressé woon na ay bay yóbbu ko ndaw ñi adressé ay bayit tamit yóbbu ko li nga xam ne mooy waxambaane yi te loolu lépp ay jigéen la ak i tànk ay mag ak ndaw gis nga sax ba mu demee ba jeexal téere bi dafa ne maa ngi ñaan nekkub téere bi mu not matu téere bi mu nekk texe ndaw ñi ak jigéen ñi ak borom bi jaay waan akuna saadat haza waan yakuna sa haza nazmi saadat shibbi wa shubaan wa niswaani léegi mel na jitaay xam-xam la ban message ngay lancé jëmee ko ci ndaw ñi tey ngir bu bu ñu jëlee relais bi dana mën a dem ci kanam ni ko suñu tubaab bëgg waaw am solo nga ndax damay faral di wax ne Serigne Touba li mu yoroon ba tey bu yokkuwut wàññikuwul ndax Serigne Touba ku ne dañuy dégg sax ñi nga xamante ne nii amuñu xam-xam waaye am nañ yëg-yëg ci sëñ bi rek dañuy wax naan sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am kon law mag ña suñu maam ñi amoon ci sëñ bi jëf ja moo fi jóg waaye la sëñ bi doon fay jógu fi ba tey gone yi tey nañ gën a góorgóorlu roy ci mag ñi roy ci gaa ñu baax ñi te fii nu bëgg a dox tey jëmale fa àddina bëgg moderniser yu bari nañu xam ne lii moderne yoonu murit bokk ci ndax jëf ja nga xamante moom la maam ña daan def di ko jëfal ku tedd ki mu leen daan fay ba tey sëriñ bi mën na lool ku jëf la Cheikh Ibra jëfaloon sëriñ Touba ku ko jëf tey sëriñ Touba fay la lam fayoon Cheikh Ibra waxuma la ak keneen ak keneen. mel ni tudd nga modernisation te islam moom ak yoon Sëñ Tuubaa yi mu classique rek la mën nekk comme ni nga ko faral di waxee. Mhm. waaye mu mel ni Sëñ Tuubaa juñu nga léegi su ma déggee ne lam doon xeexee bi mu demee bàyyi na ko fi. Mhm. muy xam-xam. Mhm. loolu nan lañ li sëñ bi bindoon jógu fi la sëñ tomb yi bay di amul lenn loo xamante ne lu sëñ bi jàngale woon lu fi jóg la njàngin mi moo fi jóg ndax tey ji danoo jël àddina teg ko ci kaw lan war wut suñu digganteeg suñu borom ndax mbooleem lu nu sëñ bi jàngal muy xam-xam ak ci lu mu mënti doon rek lu ñuy sàkk suñu digganteeg suñu borom la ndax dangay gis waajur yi tey ku ci am doom da koy yóbbu jardin mu jóge fu mu yóbbu ko primaire collège lycée université bu fa jógee wuti liggéey retraite diggante boobu wut ci dara ci yàlla suñu borom amoon bu nu xoolee daaray tarbiya nga xamante ne murid da daan jël doomam jébbal ko Serigne Touba bëggut ci moom dara lu dul mu am mu yàlla suñu borom jéemul sàkku ci moom dara jéemul wuti ci moom dara loolee xewi na Serigne si am jaaray tarbiya tey dañ leen di wàññi kon lan moo fi desati jamono ji li ëpp ci murid di jàpp nañ ne ku ci solu baylaat yor sab dollu xasida dem di toog di kuréel xasida yaa ngi liggéeyal Serigne Touba fa la liggéey bi am alors que non bu njëkk mag ñi sax buñ demaan bay kuréel day fekk ñu liggéeyal sëñ bi ci waar yi ba ñàkk tooy xep ba tuur lu bari ba mu wóor leen ne lii ñu def tey gëj nañ ko def wala am nañ xéewal lu ndax liñ liggéeyal sëñ tubaa tey ñu doog kuréel di ko sante sëriñ tubaa ndax ndimbal li leen yàlla suñu borom may ba tey jii ñu mën a liggéeyal sañ bi loolu waaye buñ demee ba nga xamante ne ni jamono ji jàpp nañ ne ku kuréel xasida rek àgg nga dangaa war a jël kaala wara nga sol mbubb mu rëy ku la nuyu nga jox ko cati baaraam seex seex lu dox sa bopp ak kilifa c'est très grave nan dellu soir sunu xel te xam ne kaala gi ci bopp bi ci ndiggale la war a njëkkee lii ñoom Cheikh Ibrahima sëñ Issa Dieng am ko sëñ Mad Lamine Diop Dagana ak ñeneen ak ñeneen laataa ñu ciy jot dat nañ lu wér waaye juddu bërki démb amagoo fanweeri at doonu seex te liggéeyoo benn sëriñ gi gërëmu la ku ko jàpp ne loolu yoon yi nax ma sa bopp yéeme na jërëjëf sëñ euh, Mouhamadul Mahfouz Mbacké jërëjëf bokki téléspectateurs yi xanaa ñu bàyyi la rek euh, nga tàggoo ak bokk yi ñaan leen ndax mel na ni euh, wax nga lu am solo ci xam-xam wax nga lu am solo ci mag ñi daa mel ne wane nga la sëñ Tuubaa wanoon démb te mooy rek fexe ba topp tànk ni ndax dañu wax ne roykaay jeex na mais roykaay jeexut dañ ko fee bàyyi sëñ moom mof si royukaay jeexut nañ ko fay bàyyi kon nag li suñ tuwaa di bàyyi nañ ci sëgg sax ci namp ci dama wax woon ne nañ sax ci man namp ma te bu mu boole ak maqsuuf maqsuuf ak taal mooy yi nga wax kon looy tàggoo ak bokk yi ci loolu ak itam di fexe di wax ak taalibe yi loo xamante ne lu concret la boo seetloo ci samay waxtaan mbooleem lu ma wax rek boo xoolee di nga ko gis ci xam-xam wala nga gis ko ci alxuraan waaye lu tax duñ ko indi maanaam bu ñu nee yàlla suñu borom mooy gindi ko ko neex leeral euh, di réeral ko ko neex bu ma neexoon yam ci lool au lieu que ngay indi naan yaxfiru li man yacha wala yuazibu man yacha di ko wëlbati ku di ko firiwaat ça prend beaucoup de temps benn ñaareel ba ki nga koy wax xamut ci arab yi ñaari baat beneen ba saa su nekk bu nuy waxtaan ci sëñ Tuubaa kéemaan yi kéemtaan yi kiraama yi mu def rek la ñuy waxtaane te xaside yi ñooy ay kii kiraamam te lu concret li nga xamante ni sëñ bi def na ko fi bari na du xaaj jeex dox ci loolu di wax taalibe yi loo xamante lu concret la te wàññi waxi daanukat yi ak yeneen yeeg yeneen ten sàkku ji xam-xam lu am solo la. message bu am solo sëñ a jëm ci loolu sëñ Tuubaa woote seen maam ci la wootoon ci la nekkoon euh, télé Mafaatihul mi ngi lay jaajëfal di di la gërëm di la wax euh, ñoo ngi lay ñaanal koor ak jàmm di ñaan yàlla ni ñu ko tàmbali ak bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu kon mbokk yi euh, doon seetaan seen Euh, télévision Bichri TV lii mooy li nga xam ne moom lañ jëloon tey ci fulkul masxuun muy euh, premier jour bi nga xamante ne ci lañ ko doon amal tey euh, gis ngeen jàng mu njëkk mi ni ko sëñ bi jàng ci niñ ko baaxoo diglu ànd ak sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké te mooy diglu ko ni ko sëñ bi bindee woon xattan wa tilaawatan waaye tamit diglu xuraan yi mujj bi ci xaaj bu ñaareel bi nga xam ne sëñ Mouhamadou Mountakha Guèye moo ko doon jàng waaye tamit dégg ngeen mooy ñun ndaw ñi surtout nañ gëstu ji xam nañu xooli sëñ Tuubaa bind te bàyyi liñ nettali sëñ Tuubaa ndax liñ bind moo gën a wóor sëñ Tuubaa daa wax ne lépp lu waay wax mën naa dem waaye lépp lu waay bind nag day sax loolu moo tax nañ sax ci mbind mi nàmp ci xool ci sëgg ci da bañ a xool keneen ndax sëñ Tuubaa doy na royaay kon mbokk ñu ngi leen tàggu fii ba ëllëg ak jàmm incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yaa xayra